والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالعمل الصالح إلى يوم الدين ورضي الله عن القرب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد بن محمد بن السالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم اجمعين مبكي نيغي لين سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته كادو يي خمنا كونتراندي بو بني بو سنو woyjur wu tedd wi teew fi gannaaw bi ñu ko nuyoo ziyaar ko ziyaar ci jëmmam ki mu wuutu ci teewaay mu di cheikh seydi aboubacar si mouhamadul mansour xalif general des Tidianes ñu nuyu ko ziyaar ko feeñal sunu orma ci moom mu jaare ci sunu wayjur cheikh seydi mouhamadul mansour dabbaax yal na yàlla dolli leen a dëgëral yal na yàlla sàmm seen yoon sàmm seen yéene sàmm seen liggéey may nu ànd ak yéen ba mu yàgg lool waaye xalifa bi yàlla may ko mu yeggale sumbam yi nga xamante ni ku mu féete ci sa jëmm am nga yen bu diis yàlla na ko yàlla woyofal te yeggaleel ko te mu ànd ak sago nun ñépp nu duggaale ci biir yiwam ñu nuyu ko ziyaar ko ndokkeel ko ci bis bi nga xamante ni bisu feddali wëllëre la bisu feddali njabootu bisu feddali sunu bokk ci biir njabootam taalibe yépp ku dégg wooteem rekk ñëw nga ñëw def ko mu nekk feddali jaayante na ko sëriñ Abdul Aziz daan waxe fii saa yu ñu tolluwaan ci bisu ziara général dana fàttali mbokki taalibe yi jaayante bàmbara ba ñu ni ko looy jaayante mu ni damay jaayante ngiri ndund mooy giiru dundam moom la fas yéene joxe ñu ni ko déedéet giiru dund kenn du ko jaayante mu ni ah wala bokk ba ceebu bay buur jeex waaye nun tey sunu jaayante ñu ngi koy jaarale ci jëmmi Sëriñ Mansour wan ko ni ko nun njaboot gi ñëpp ñëw nañu wuy ci woote magam di xalifa bi ànd ko ak ay rakkam Serigne maudo abdul Aziz yalna yàlla tasu ci barkem te maynu ci mom wér ak bépp tawfiq Serigne babakar si abdul Aziz yalna yàlla maynu ci mom wér ak bépp tawfiq ak ñom ñi nga xamanteni tay ki leen jëmmal moy yow ak sa doom yu tedd yi ki nu ci tuddu tay di Serigne Mansour di xalifa cheikh seydi mouhamadul moustapha di xalifa seydi aboubacar radiallahu anhu ñu ziyaar leen ak nag mbooleem bànqaas yi fi daje foog naa ni tey njabootu Seydi El Hadj Malick yépp a ngi teew njaboot gi yàlla dogal tay nun ñëpp sunu yaakaar féete ci ñoom njabootu cheikh Mouhamadul Moustapha Jamil njabootu cheikh Seydi Mouhamadul Mansour borom daara yi sëriñ cheikh a ngi teew sëriñ Mansour Jamil moom laa tudd léegi mooy xalifa bi njabootu Seyid cheikh Ahmed Tidiane sama sëriñ Seydi Cheikh Ahmed Tijani Serigne Mansour Serigne Habib mu ngi teew tabaarakallah njabootu Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Babacar Sy mu ngi teew njabootu Serigne Habib Serigne Mansour bu teewee teewal leen waaye yaakaar naa ni Serigne Babacar Sy mu ngi fi ci teewaayu Serigne Maam Ousmane Habib mboolem njaboot gi teew nañu pour bis de dafa nek bis bu symbolique ci Tiwaawan ke ñu lay njëkk wax nak taxawayam moy délégation BIFITEU, fi tew di délégation wu président de la République monsieur Bachirou Diomaye Diakhar Faye ñu nuyu ko ziyaar ko xam naa li ci def yaa koy yeggale waaye danañ la wax rekk bi nu sëriñ bi joxe ndigalal wàccaayal lii mu jaare ci sëriñ Habib nu ànd ko ak moom ak sëriñ Habib bosam sëriñ Habib si Mansour bi nu ñëwee ñi nu njëkk a waxal mooy le préfet de Tivaouane gannaaw bi nu jógee ci Cheikh Seydi Aboubacar Sy di bàyyi Serigne Mbaye moom moo nu waxoon ni nu lu ngeen di defati dem leen ci moom ndax moo toog ci kër gi mu magal leen bi ñu demee feeti ko mu wax nu ni mu bëggee waaw mu wax nu ni mu bëgge ni nu na ko teg ci siyaasa kër gi ak falsafaam woonu itam ci nu gën a bàyyi xel bis bi li mu laaj li mu laaj ci ay teggin li mu laaj ci eh, daara teggini daara li mu laaj ci pastéef ak wartéef taalibe yëpp war ko solo taalibe yëpp it ñu woo leen ci turu xalifa bi ñoom ñëpp tey yaakaar naa ni ku dugg Tiwaawan xam nga ni ku mën ñëw ñëw nga ku ñëwul ngànt la waaye ñi ñëw ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm ci wuysi bu rafet bi ñu wuy si ak ñëw gi nu ñëw xam ni ziar général dafa bokk ci événement yi ëpp solo ci dundu taalibe digganteem ak sëriñam mu ñëw di fastanteeg moom di feddali faste di ko dalal xelam na ko eh, saxaabatu rasul defe woon ak seyduna muhammad ca xudaybiya yonent bi taxaw di nangu seen jaayante ndeke itteel na yàlla ba yàlla wax ko ca aayam ba inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allah yaddu llahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih man awfa bima caahada calayhi llaha sa nuutiihi ajran cazima yonent bi yàlla wax ko ni ko waxal sa gaa yooyu ni leen ñoom ñi ñëw di teg seen loxo ci sa loxo bu tedd boobu nañu yëg ni yàlla mu nga koy seede ca kaw te nee na ñaar ñu ko séqati ba mu jar ñu di ko waxtaane nun yàlla nooy ñëw moom yàlla mooy ñëw ñetteel leen nangu ko seede ko tabaarakallaahu defe naa taalibe yépp yëkkati nañ seen loxo xol teg ko ci loxoom moom mu jaare ci sa jëmm يجي تمام بجا سيد الحاج مالك اك نجابوتم يب راوتين كي نيوكو سدوون شيخ الحاج عبد العزيز دباخ سدكو كوموي شيخ الخليفه رضي الله عنه ونفعنا الله ببركتهم ني نكون نك تي لا ني دور تاملي ليغي le préfet de Tiwawan avec le CRD. le CDD, comité départemental, le gouverneur de Thiès, M. Baldé, Abou, Abou Bakar, Omar Mamadou Baldé. ñun gouverneur Baldé rek la wax ndax dañ ko Aziz muy di borom qui di borom yi nu waxoon préfet ci ajo ànd ko ak daairatul kiram bi ummu dawair daaira ahmadiya daaira fédération ahmadiya li ñu waxoon ci ay ajo yépp tabaarakallahu biñ ko waxaatee def nañ ko ba def lu ko raw léegi la ma waa daairatul kiram di jox ni ma mënul ñàkkit nga tuddaale gouverneuru Dakar

aar mbokk yi ba ñu yegsi dugg bu jekk biir Tiwaawan amuñu benn tolof tolof neena na itam ñu waxaale itam taxawaayu imaam Mouhamadou Alioune Moussa Samb di imaamu ratib bu grande mosquée bu Dakar lu mu daan def moom it def na ko wax na ni itam kenn ci njaboot gi ñu di ko wax mu di Amad Adama Faye logistique bi daayira bi soxla woon yépp waa daayiratul kiram ak ahmadiya ak fédération ahmadiya ak comité d'organisation bi fédération Dakar ak fédération Rufisque tabarakallahu rafetal na abal leen lu doy a doy ci logistique nee na niki noonu nee na ñu wax la ni itam ci kër gi am na ay mbokk yoo xamante ni taxaw nañ lool tàmmalee ko ci sëriñ Abdul Aziz Njaay bu Ali Njaay ku ne xam na taxawaayam yónnee na fi lu ne ci ay teranga yàlla dogal na rawdu sëriñ Babacar dafa demoon tukki rek gisi faak gris bu rafet mu yónnee ne ah, dama bëggoon ngeen xool ko bu rafetee ma wutaale ko indiwaale defe naa ma wan ko sëriñ Cheikh bu Serigne Mansour wan ko sëriñ Babacar ñu rafetlu ko ni baax na moom la indi bërki démb moom la ñu muuree rawdu sëriñ Babacar Abdoul Aziz yàlla na ko yàlla fay nee na itam ci biir njaboot googu El Hadji Makhtar Ndiaye bu Malikia TV yónnee na fi télévision bi depuis jeudi la ñu ñëw fanaan si ajjuma samedi ñu ngi nekkoon ci ay plateau rawatina foire bi nga xamante ni sunu rakk yu tedd yi ñoo ko yëkkati woon mu di foiru jeunesse tijania fii ci kër gi ñu def ko muy foire bu am am solo génne produit yi nga xamante ni jeunesse bi yëpp mom lañu nek que wajale ko ndigal yow Cheikh Mouhamadul Mansour yani ni nañu organiser len ñu boole ci seen sababu tarbiya yëngatu boo xamante dana may yi jeunesse Sénégal ñu am ay firnde yu leen ca génne defe naa ku jeunesse bi ay produits une ñuy transformation fruitière légumière et céréalière waaye itam surtout ay pasteefu liggéey yu ñu jóg ñoom def ko muy cellule zawiya tijaniya nee na gannaaw loolu tabaarakallahu alxaaji maxtaar njaay yeble na fi ay camion def ci ay jus de fruits Yo xamante ni daf ko jox pèlerin yi ñëw pour nañ leen ko séddale ndax ñu mën a am daluwaayu jàmm nee na yooyu nag mu ngi tudd délice exclusivité biñ ko ci jox daf ko soppi dugal ko ci titre Malikia Malikia TV Malikia jus yaakaar naa ni yooyu itam ay ndimbal la ñu def ko defal ko xadara bi nee na Famara Ibrahima Silla tabaarakallaahu njaboot la ci sëriñ Seydi Mouhamadul sëriñ Babacar Sy Mansour yónnee na fi ay teranga nee na yu yaatoo yaatu pour jàppale ko comité bi nee na ku ñuy wax it Moodu Xulle defe yónnee na fi géttu nag yoo xamante ni moom la ñu jox waañ yi pour ñu dimbali ko ci pellere yi ñëw ak nag yi xalifa tudd léegi préfet Djibi Diallo Abdul Aziz Ndiaye Bara, yonne na fi ay kesi kesi keesi fruits nee na la Casamançaise aussi ci ndox yonne nañu fi ndox wisaare ko ci dëkk bi pour jàppale ko aussi pèlerin yi ñëw ku ne xamna ni jamono yi tangor la nee sunu wolere itam El Hadji meru Ñing El Hadji jaañ si mbeng alxaaji jóob si ak ku ñuy wax moodu xulle tabaarakallaahu abdul aziz xulle ak aarona ndooy bi mu tudd léegi di meeru sendu tabaarakallah am na lu bare bari ci ay nit yoo xamante ni togg nañu ay teranga pour séddale ko pèlerin yi ñëw ci ay groupe whatsapp ci ay mbokki taalibe yu am rekk yéene yu rafet pour jappelé ko khalifa bi ci ay ganam ndax bis bi ku ne xamna ci tangor la xawna metti xat waye li nuy wut ci tiwawon jarnako ñu wax la ni dal nun njabot gi tamalé ko ci comité d'organisation bi nu séqoon ak serigne Habib ak serigne Habib si al khalifa ñu ngi lay wax ni liggéey bi nu joxoon yombal nañ ko lool ndax autorité yi bi nuy ñëw di jaaxle ci tàmbali gi xamuñu woon ni ñuy def waaye le président de la république dafa tombeek mu ñëw Tiwaawan bi mu ñëwee laata nuy xalaat wax ko ko ndeke moom mu ngi ko indiwaale ci mbuusam indi ko ci mbuusam bi muy introduir wax ak xalifa bi daf ko ni yëg nañ ni ñu ngi waajal ziar général ziar boobu xam nañu importance bi mu am ci tariqa bi ziar boobu itam joxe naa instruction ci ministre de l'intérieur ndax ñoom ñaara àndoon taxawaay bu ko ci war waxuma ñu yam ca lañ doon def waaye nañu ko jéggi loolu nag yëgal sa kilifa la mu doon la ku yëg sa kilifa nga yëg ko yamu fa yónneewaat na teraanga ni nañ ko yokk dimbali ko ci biir gan ñi ñëw ndax xam na ni xalifa bi lépp moom la war te boo amee sa kilifa woyofal ko waaye bokk na ci nun li nu gën a yem mooy nangu gi mu nangu li mu doon Sëriñ Babacar mi wax ko lu ama solo ni ko gis nañ ñaari baat yuy refléter toujours ci sa discours ak ci sa waxin te muy baatu humilité mu ni ko humilité nag bu gungee leadership boroom yàlla dana ko defal sagesse boo xamante ni ñépp koy naw kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal boobu sagesse mu ànd ko ak gouvernement am premier ministre am yii mu jël wér na ni amuñu woon jot ga waaye Serigne Mansour ñu wax la ni li nuy ñàkk ñàkk jot ngir booy doog a ñëw ci réew te dossier yépp gisagoo ko ku la ci bëgg yokkal lu mel ni bu dul sa mbaax doo ko def kon ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla gunge ak ndamam defal ko képp ku mu ko àndal gis ngeen xadara bi

ci weer wii nu génn ba yegg si tey muy président de la république du Sénégal ñu ngi koy ñaanal bu amee ndam Sénégal am ndam te sëriñ bi da daan wax ni boo amee sa ëmb mu nekk ci gaal bul ñaanal ëmb bi mucc waaye ñaanalal gan gi gaal gi mucc bu gaal gi muccee ëmb bi dana muccaale kon nag moom mi koy conduire yàlla na ko yàlla muccal ak ministre yi El haj malik ak Cheikh Ahmed Tidiane djey Cheikh Ahmed Tidiane djey nak serigne bi ma wax la ni abdul Aziz moko tuddu tudde ko serigne Cheikh El malik duma wax li nu bok ci Jolof ak lu bax li ñu sekk waye mom xamna ko ndax ca Casamance le serigne abdul Aziz don def tourner bi muy def tournée ba yegg si mu judd sëriñ Abdou way juram El Hadji Ibba Dieye yàlla na ko yàlla dolli leer ni sëriñ Abdoul Aziz na ko ko tuddal mu tudd ko leewu ko tudde ko sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al kon ñii fi ñëw mën nañoo wax bu wér wér seen njaboot lañu kon li ñuy ñaan mooy ngeen ñaanal leen yal na leen yàlla gunge ak yiwam gunge leen ak ndamam defal ko rewmi gëna dolli jàmm ji yàlla defal nu tawfiq te may nu nawetu albarka wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aw serigne bi ku ñuy wax Ousmane ndoy dafa yónnee teraanga ju bari serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dabax te neena mi